nekk nekk leen ci rek nekk leen ci rek day gën neex rek di gën baax ngir ngeen ni mën di jot suñu vidéo saa su nekk da ngeen fi nga xamante ni mooy Bichri Airport TV bu leen pare ngeen activé cloche de notification bu defee dara doo leen rawati suñu vidéo jërë ngeen jëf ngi bal xaq ñëpp tomb bu ñuy fàttalante dañu koy tënk ci lu yéeme benn waaye ngi nii boo xam ne ku mat a dimbali la koo xam ne daa dox ci jëmmi boppam kenn wóoru ko kenn ayyumu ko kenn waaru ko mu ne dafa bëgg dugg ci lislaam bunt ba mu jaar nag doon bunt bu xat ndax fa mu jaar dañu ko ne balaa ngay dugg ci biir lislaam gannaaw yaakaaru na moom ci boppam jëmm ci yaakaaru na da joxe li joxe laa loolu nag di lu yéeme bokk yi dugg ci lislaam su ko nit ki nammee luy gaaw rek moo ca war a gën a gaaw ndax dugg ci kët kuñ ci tegal ay gàllankoor ci alal ju war a joxe ak fu war a jaar fu bari ci ay jaaruwaay ba bam ba bañ ko ciy dugal suñ ko ci dugalee ba wutul mën naa am mbett mbett ma koy dal mooy ñam jaare dugg ci lislaam ñu mu doon moo ne dugg ci lislaam day yomb na lool génn ca kay moo jafe ndax ku ci bëgg dugg mën na daal dugg fa saa sa yomb lool xanaa génn ca kay la ñuy wax ndax ku ci bëgg génn du demee noonu moo tax benn waay dafa am fu mu jaar ci bunt bu mag dugg ci lislaam bëgg soxna fekk daa bëgg soxna ci jullit yi ñu ne ko alquran moo ne wala tankixul mushrikina xata yuminu lislaam xamut diina ju nit nekk ku nekkut ci lislaam rek mushrik la ko tudde wala tankixul mushrikina bu leen leen dencal xata yuminu mu daal di nangu daal di dugg ndax di yaakaar kuñ ko war a may ku mu bëggoon ñu ne ko it faaw am na fu ñuy jaarale jullit yi bu fekkee jaaree góor woon faaw jaarale la fa ginnaaw góor nga faaw nga jaar néegub góor mu ne ay ca ndax kooku jaral na ko ko waaye li gën a am solo rek mooy gën dugg na ci lislaam moom ñëpp a yam moom ñëpp ci yam bu mu jotee ci lam noonu wut nis tuuti mu bëgg caa génnaat dem diisoo ak kam jaaroon dugg ci moom kooko di bunt bu mag nekk ku dugg ci lislaam ba yàgg nga bëgg caa génn kat dañuy dagg boppam ak baatam mu ne yéen diine ji diine ji métti ngeen yor loo xam ne ku ciy dugg day am lu ñu dagg ci moom te bëri ngeen dagg ñu dagg baatam ak boppam loolu nag la muy tegtale mooy bunt yi ñu jaar dugg ci lislaam moo am jafe-jafe ndax bare na ñu siy dugg di ab lim waaye bunt yeñ jaar moo tuuti moo xat ci bunt poot lañuy jaar bokk yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne dugg ci lislaam dirut fay génn njëg dirut topp bi aw sas waaye nañ ko waxloo ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah gannaaw tax na koo jóg moom ma ca xol ba lu mu ci mën a gàll rek na ci daal dugg gaaw su boobaa nag euh, waxtu wa jëkk a jot ba mu fekke bu fekkee aggugu donte jullee nga ba noppi nañ ko daal di wan nañuy jàppe ak nañuy jullee keneen la koy tàmbalee war a fa saa sax nee na su weeru koor ñëw su su duggee ci weeru koor la des ci weeru koor daf koy woo su taseeg mu am alal ju bari it dañ ko naan fi saasi ana sa alal mu ne mi ngi ñu ne ko coof ci doxe waaye neen daal ku ne laa ilaha illallah muhammadun rasulullah daal te muy dëgg ci moom dëgg gi moom man si na koo xam ndax moom man bu ko taxee dëgg dëkk ak dëkk nee su boobaa bu ko xasee ba wax rek eh, lislaam dootu bocc gànnaay jëm ci moom xanaa lu dul lislaam yàbbale ci moom te su boobaa yàlla moo naan ñu def leen ak moom lii ak laa yàlla na ko yàlla déggloo nag moo tax suñu ki xasee boo wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci jullit yi la bokk kenn sañatu ko takk taxawal ci dangay joxe lii da ngay joxe laa da joxe da ngay joxe ba mu bëgg a génnaat far li tax ma suñu ko bunt yi ndaw am na ñoo xam ne aw nit jaar nañ ci ñoom dugg ci lislaam mujj ñu génnaat ca loolu moom moo yées moom lépp moom ndax dañ dañ ko ki cay génn da ko naan la nga ma waxoon kat bokkut ak li ngay def ndax danga nga ne ma woon waxtu julli wu jot na nga ñëw jàpp sàppe ci sàppe si bu fekkee jàkka la bu dul jàkk di kër bu fa ñaar ak ñett nekk ñu def sàppe jiital kenn waaye gis naa ne boobu bi si mu toll nii maanaan la waxtu julli jot na nga naa ma demal julli rek te mosuma laa gis nga def ko kon damay génnaat ndax man la ma nekkoon wéréon na ci moom kooku nee na la ma nekkoon wéréon na ci moom kon du dugg ci loolu du bàyyi loola ba noppi ñëwaat ci loo xam ne xamul ku mu cee topp moo tax aajowut laaj benn somm waaye lim laaj daal mooy ku ko taxawu ku ko taxawu leeralal ko baat yooyu mu wax lu muy tekki ba mu leer ci boppam ñu wan ko nag ne ko baat yooyu li koy tegtale ci ñun ñu mën a xam ñu nit mooy say cër di ko jëf bu fekkee nag bunt bu ndaw la jaar boo xam ne di ndatasee moom rek ñu ne ko tuubalal kii moom ci boppam xamul luy ponk yi xamul ci boppam dara li di maandu mooy mu yable ci ku ko xam ne ko demal ci diw ñoom waaye da koy dal di bëgg ngar dajjoo naan nangamam la daal di koy téye gàllankoor ko gannaaw bu mu gàllankooree boppam yàlla nu yàlla musal ci loolu moo tax bu ñu ko nee da dem ci fii wuti fa aw kayit wala faa ba mu nar a jafe ci moom ba mu tayal ba bëgg a génn lu metti la yow metti lay doon ak ëllëg koo xam ne daa war a wër di woo nit ñi ngir ñu dugg ci lislaam ci waaraate wu rafet wu jëkk xamal leen ne lislaam diinay yërëm la diinay bokk li nga am la ak sa mbokkum jullit diinay jox cër mag ak ndaw la dinay jox cër góor ak jigéen la diinay liggéey la diinay ñaq jarañu la ngir lan xam ne ëllëg gën ne ëllëg mi ngi ñëw te atte ba foofa la su boobaa ku ko wanee noonu nit ki bu amee am xel waxuñu xam-xam faw mu nangul lislaam waaye su fekkee asalaamaaleykum waaleykum salaam rek waxi xaalis waxi alal bokk yi loolu mat naa teggi tànk yàlla na ñu ci yàlla musal bokk na ci li di bi jàngale it la mag nga daan wax ladabu ladabu mooy ay al adab rek lu nekk daa am ay adab ay aadaab lu ne jaarale nit ki ci bunt ba muy duggee ci lislaam ak nu ñu koy teqantale ba ba mu koy xam ba ba mu koy man di ko gën di bëgg waaye nag tudd naa bunt bu ndaw léegi am na bunt yu tuuti yoo xam ne euh, mën nañoo dem sax bay fàttali waa ji lam daan def ba mu dugg gudd lislaam te bëgg ko woon bëggatu koo fàttaliku ginnaaw yàlla nee woon afa allahu amma salafa lel weesu moom yàlla amatu ci soxla soo ko ko bëggee fàttali banaa ko la nga doon def boobee ci yëf yi la bokk ndax boo ko def fii da ko def feneen it ba am na moo tax yàlla ne ku xas ba tuut yàlla suturaal leen ko mu suturaal boppam kenn xamalu ko dara ba lam doon def lépp mu def ko ba weesu afa allahu amma salaf wa man aada fa yantaqimu allahu minhu wallahu azizun du intiqaam su ca nekkee di ko ŋawte ŋawtee waat te ña ko waroon ña ca waroon a xam xamuñ ca dara day mel ne daa tàmbale waatu jëf ndax am na ñu koy dégg ñoo xam ne da leen cay xiirtal dañ naan kon kat ginnaaw na ko def wàññiwul dara tax sëñ bu mag bi na la weesu te melul na war a mel fàtte leen ko fàttelew leen ko it kii ñëw bees dugg ci lislaam ndax Seydina Omar siiw na lool ne mas nay def tawaaf tàmbalee xajarul aswad ñu ne boo ko mënee fóon nga foo ko boo ko mënta fóon nga junj fa tolloog moom daa dem ba ko fóon xel mi ne yar ci aw mu génnaat ne ko xam naa ne aw doj la ma dem ca démb te bëggutu caa xalaataat mu ko bu ma gisutoo yeneen ci bi def ko rek du ma ko daaf ne aw doj kese nga foofu la nit war a nekk la weesu na ko fàtte moom la suñ bag bi di wax ne bu kenn geesuwaat fakkatal yu ko daloon ci dundam waxuma la di ko fàttaliku ci soog a dugg ci lislaam moom lu yàlla ne cell te xam ko nga xam ko yaag moom ba nga weesu ko rikk bu ko nit ñi xam soo bëggee sutura wala takun multafitan lil atharaat wala tubaaxis abadan an awraat waaye soo waxee ne soo ko bëggee leeralal la nga daan def bu njëkk faw nga fàttali ko ñam ko daan àndal di ko def xelam da ca demaat muy xool mu leen xool ay bët te loolu lislaam daf ko ko terewoon alxuraan moo ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam qul lil muminina yaghuddu min absaarihim bu leen di leen gëm xas na ci gëm ba bàyyi fa ne ko doon defandoog moom bul ko ko fàttaliwaat laa taltamis min uyubi nnaasi maa sataru fa yahtika allahu sitran an masaawika wadkur maxaasina maa fihim ida dukiru wala taib axadan minhum bima fiika kon bopp jaamu yàlla gu toll ni nit jaar ci yow dama bëgg a dugg ci lislaam benn nga laaj ko alal ju bari am na ñu ko jaral am na ñoom loo leen laajum njëg dana leen ko jaral ba xam lu mu doon waaye nag foofu bunt bu tuuti la bu fay jaar rek mën na génnaat ndax kooku alal la teg xoolul yàlla xoolul yàlla xoolul yoonum ëllëg bu ci nar a ame ndax yonent bi muy wax Sayyidina ne ko fexe ba benn waay jaare ci yow jub xocc moo gën àdduna ak li ci biiram moom dafa fab àdduna ak li ci biiram weccee fexe ba benn waaye jubé ci loxoom foofu rek am na fi ak wuute ak njàngale yonent bi ak joxoñam loolu mën na ko jural lu nekk ëllëg ku wuuteeg yonent bi te xam ko yàlla wax na ñu ci alquran falyaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا kon fu waay demati ne daa bëgg a dugg ci lislaam du ci kenn am gu rëy ndax garab bu la sutut du la mën a may kar na jàpp ci loxoom ba ca pénc ma pénc ma moom lañ tuddee fi ay maxaakim shariya ku jaaxle ci diine ci pénc ma nga war a dem su demee ci penc ma su bu fekkee baax na mu laaj ko fa nekkal kooka it buñ ko xamut mënu ko na seet ñi ko man ndax ñi ko man bari nañ waaye bu ko jàppee borom alal rek mu ne bu kenn yëg naa ko xuumtoo maag moom rek ngar dajjoo ko man kenn lu muy joxe jox ma ko jox googu baaxut su ko defee su noppee ñu bind aw ak ku santam ak adresse ba ëllëg si biir lu xew ci moom ñu mën koo xam ndax nit faatu na ci ab dëkk te xamul jullit la wala déet amul seere te it ñu woy wattandiku di soppi ko di ko soppil aw santam ndax suuf du soppi aw sant am nañu boole askan ñoo xam ne am nañ ci njaboot te boo leen laajee duñ xam fuñ ci bokk fuñ ci sosoo muy musiba mu bu fekkee tur wa mu yor bokkut ak dara ci bokkaale yàlla mën nañ ko ko bàyyee ndax Seydina Omar moom ma tudd ba mu dugg islam Omar la tuddoon bi mu ba nekk amirul muminin Omar la wéy di tudd Seydina Ousmane noonu Seydina Ali turam bi moo jiitu muy dugg ci lislaam doonte mos a ci leneen waaye soppiwu sax moo tane sant soppiwu sant moom sant ud'uuhum abaihim huwa aqsatu inda allah fa in lam taalamu abaahum fi ixwaanukum waaye bu mu tax ñu satal ko santam nañ ko bàyyi mu sant nam santoon yor ci ay kayitam loolu lépp ab taxawaay la laaj du lu mu yomb loo xam ne rek dañ naan damay tuub si rek day tuub si rek ñu ne ko neel nangam ak nangam ak nangam ne ko santal yàlla kenn ku nekk kot ko ci génne aslëf jox ko ko baax na nag waaye am na ñoo xam soxlawuñ ku leen di ku leen jox ñoo ëppale fuuf fa ñuy jaare ak ka dem ca moom ak nu mën a toll ñoo ko ëppale fuuf kon nag ab liggéey nga foofu boo xam ne bii xel demu ci woon ndekete yoo wares naa sàkk ci pénc yi ay waroon xam-xam yoo xam ne loolu moo fa war doon seen ab liggéey ku ñëw ne day tuub ak lu jotaay ba xat-xat nañ ko yebal ca ñooña ñu fexe ba jàngal ko lëf ci diineem donte dañ ko fay téye ay fan mu toog fa bañ wan ko melokaanu lislaam mooy lan ci jëflante guy jëflante ak moom yàlla na nu yàlla dafa dégg ak topp te muus ñu seytaane ak pakkam te boole nu gindi gindil boppam su ko defee suñ ko jaaree moom fa ba noppi buy demit ñu boole ko ñoo xam ne ñoo koy sut kar ñoo koy sut ba mën ko may kar dëkk ba muy ñibbi ñu tànn ñu tànn fa it ñu ko fay booleel bu demee wéyal fa lii mu tàmbali woon fii ndax sëñ bu mag bi bind na ci téerim boobu ma wax léegi ne waxuma la nga def àndandoo ki may bëgg a wax waaye bu toog ak moom sax toog lu mu gàtt gàtt wala tujalis gayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal muraad lu jotaay ba gàtt gàtt bul ko xeeb waxuma laa di siqa moom grand place fépp képp koo xam ne boo toog ak moom doo fa dolli ci sa wàllu diine wala am xel yéen ñëpp da ngeen a maase na mopp rek lu mu wax ngeen ngeen fottu si kese demal seeti feneen waaye boo mënta ñàkk ñoo xam ne it ku la gis laaj la leen wala ku la ku leen gis laaj la ko na nga ca moytu ñett ñii ku dese ku dese weesu wut koo xam ne yi àdduna kese rek la gis defe na ne lépp fii la yam loolu pas-pas bu yàqu la pas-pas bu yàqu weesuwut defe ne adduna ni ngay dund fi rek mooy way bu ëllëgee loolu moo ne am na yenn yenn xeet yu ko jàpp xeet yooyu ko jàpp moo leen tax di kër kër yi ne lu waay bari la fii muy ay oto ay kër ay villa ay suuf suy faatu day mel ne ku jéggi frontière bu dëkk rek dugg ci dëkk ba ca des ku jéggi frontière yóbbu ci dëkk ba ca des bu fekkee waajoon na ko ba muy dem ku ne xam ne du fa tumuranke ndax ma nga xaalis bu bari pas-pas boobu nag pas-pas bu yàqu la mu lu nit am fii fii la koy bàyyi buy dem lam fay fekk mooy lam dawaloon te doon ko seeral yàlla te doon ko def te yàlla tax benn muy ndigalu suñu borom wala mu naafile ko tënk ko ci benn ci ndigalu suñu borom mi rek loolu rek moo ko fa amal njariñ waaye du yóbbaale dara saa su ne ñu gis ko saa su ne ñu gis fi lu nekk ñu laxas ko ay morso rek mu dem ak mbàjj yu baax yañ ko muuree woon sax dañ koy dindi jox ko ñu doon ñibbi sa kër ga ñu yóbbaale ko ak dénk wu raf dénk bañ ko tegoon sax du demaale kon boobu pas bu yàqu la mos na see dugal mos na ko dugal ci néegu ku dese kon ku dese ku xel mi yëmbut nga xam ne xel mi lu gàtt la xelum bàyyi ma lekk ak rek boo ko tàllee lekkat goo xam ne posé na ca nekk sax ginnaaw lekkat bi def lekk la ñeme na ko lekk lu ko cay dal ko waaye ku añaan koo xam ne danaan kii du ma ko bàyyee kenn kat man rek maa ko yaayoo bu ko kenn xam na ñëw ba dem te bu ko kenn xam yàlla ñu ci yàlla musal wala koo xam ne lu mu gis bëgg ca lu mu gis rek bëgg ca lu ko romb defe ne wàlla ma nga ca te bu ci bëggee ba xoole xoole joxuñ ko ca lu mu ca mën a amee jaral na ko mag bi nee na kuñ dugal ci lislaam nañ ko tàmmal jikko yoo xam ne day lii ma wax ne day jëm ne mu jëm ne mu jëm nan ànd ak gaa yu baax yi wala tusaaxib in aradta suxba da safahin aw xasadin aw raxba yàlla nañu yàlla dafa dëgg topp te musul seytaane ak bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iri muslimina amin Rafah TV